في ku ci bëgg jël werd bi rekk mu jël ko ndax dafa am benn at mat na ñaari at fii nii ci champ de course benn nit ñi ma dama bëggoon nga yeesal ma waaye dooma yeesale ci tant bi ma réer ko ñetti at nii mu di ma wër mënumaa gis lu mu ciy charte jarul sax mu di ma ko wax comme yeesal dinañ ko dem ci tant bi yow tàllalal rekk comme ñépp mais boo ko bëggee def privilège nag du sotti parce que bala ñu lay jox privilège bi xam ndax sa wér du wér na waaw moo tax di tey rekk te def defu pas-pas rek ñun ñëpp ci biir lañu dugg waaw kon nag ñi bëgg a jël tariqa bi nañu tàllal seen loxo ñu itam ñu tàllal sunu loxo jox leen ko ci ñaari ndigal yépp ndigalu Cheikh Sanana Tijani mu jox ñu werd ak ijaza waaye ci ndigalu Sëriñ babakar ndax moom moo toog fii wax ni bu ma neexee ma ni Sëriñ Babacar du sama sëriñ ndax fañ ko joxe lañ ma joxe waaye moom it fañ ko joxe lañu ma joxe waaw moom nag ñu tàllal def ko incha allah waaw lu nekk dafay am patron foog nga nangu ko ci yéene ma ñaan Moussa Gueye bii moo xalifa mbay man leen damay jëli ji werde ci góor gi pour ñu mottali sunu kóllëre sunu diggante nag ma bëggoon ngeen gunge ma ñu dem góor gi jox ñu werd bi fa tabaarakallaahu waaw ah mu jox ñu werd bi ba noppi ni ma mu sëf ma ni ko la béykat mun ma jox leen charte yi nga xam ni wax la waaw ñoo bokk jël werd bi mais wan na leen nit kii mooy seen patron def na ko soxna Daba Mbay bu soxna Umu Xayri ak soxna Aminte Si bu soxna Zeynabu dañoo ñëw kër jëmb ni dañu bëgg mu jox leen werd wi góor gi tàllal jox leen werd bi ñoom ñaar ba noppi gestu ma ni ma mu sëf ma ni ko amun ma jox leen chart yi ma xam ni wax la waaw kon nag ngeen tàllal koo ca xam ne looloo la doy ñu jox na ko ci mbaaxu yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla nangu teg ko ci yu mag ñu baax ñi allahumma inni nawaytu taxsina mawlana السيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه من نية التحصن من كل ما يضر min shayaatini al insi wal jinn wa min al amraadi al zaahirati wal baatina jaacilan nafsi fi wasati al xisni maa kulli man taallaq bi adyaali wa jamiici al muslimiina wal muslimaat aoudu billahi min alsheytaani arrajim loolu Seydina Cheikh moo ko joxe woon kon nag waqanaa bihi arrahmaanu kayda aduwwinaa wa najja bihi al asxaaba min qabdati charri bi ahmad bil mahmudi bil xatmi bil rida wa bil mustafa bil muntaqa bil huda al badri kafaana libaas al xayri an kaana ahduhu لدينا ثنيا في لباس من الخير رمى فأصاب الصيد كل إصابة falam yabqa illa an nuqaamila bi shukri ah samaahatuhu tugni almuridina an nadan wa rafatuhu bilmuminina an isseyri kon nag yaminuka laa ansa yaminaka daiman abal fadli maa li gayru dikrikum min dikri wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon nag ni ñu defoon biig rekk ma ñaanaat leen ko ñu yeew yeewi kilifa yi yeewi sang yi yeewi soxna yi ñu njëkk a génn ba noppi ndax léeg-léeg génn bi day faral di am xat-xat bu ñoom bu ñu génnee ba noppi nag ma soog a jóg ak waa tànt bi ñu soog a génn waaw kon nag may nañu ashurafa bi tiwaawani tiwaawanu fiiha al yumnu lil mustayaa